dikkal na ma ci coow li di leen wax ne maa leen di koy demandé ci barke weeru koor gi di ko ñaan ngeen jéggal ma ko baal ma ko àq ndaxte man maa décidé comme nuut de nature nekk bañkat man maa décidé de nature nekk kuy dem au front man maa décidé de nature nekk koo xam ne xeex bi daf ma neex mu nekk ci sama xol nekk ci sama jëmm man it maa décidé bañ nekk un corrompu bi it maa décidé bañ àdduna yóbbaale ma maanaam tàccu yuuxu ëffëri nit lu tax nag ma wax lenn kese laa wax mooy li nga xam ne damaa pété plomb yi laa baalu àq waaye démb amul lenn lenn lenn loo xam ni mun naa koo baalu àq kenn et on l'assume nit nag nettali leen lan moo xew réellement lan moo xew réellement damay ñaan sénégalais ngeen concentré wu encore une fois ci xeex bii ñu nekk te xam ne du xeexu caaxaan du xeexu laaxu caaxaan xeex bu doy la bu nguur sàgganewul xeex bu doy waar la bu nguur fooweewul xeex bu doy la bu nguur jël au sérieux sérieux très man nag ma nekk cible principalu nguur gi cible principalu nguur gi yemul ci benn ma ubbi ay brèche yu bari ba nga xam ni cellule yemul ci cellule APR cellule yu bëri ñoo nekk di xeex ak man cellule yu bëri ñii ci opposition bi ñii cellule euh, Amadou Ba yi ñii cellule Macky yi ñii cellule APR yi ñii cellule Antoine ñàkk jom yi ñépp dañoo jóg benn doomu aadama lañ bëgg a wàcce muy man lu waral loolu nag mooy li ma xam ci dossier bi benn doomu aadama xamu ko ci dossier bi Sénégal ba Sénégal daj mun naa leen bàyyi ba suba kenn du leen indil dara ci li ma leen di indil bu ngeen commencé histoire bi ba léegi amul benn doomu aadama bu leen indil film bi exactement exactement ku ci nekk da ngay for ay affaire di indi di teg Babacar Keweloo ku munti doon nekk Sénégal ba Sénégal daj kenn musu leen tegal film bi tur yu bëri xamu ko ci woon musu leen ko dégg histoire bi nu mu demee exactement ñoom sax da leen a réer déedéet ak ku mun a doon dañuy for fii indi tegal leen for fee indi tegal leen tur yu bëri ñoom seen bopp dañuy seetaan dañ may seetaan ñoom seen bopp di jël détails yu gën a ndaw ma indi leen ko ba tay jii lépp mu ngeen gëm sax di ko réciter dem leen jëli laay bi ngeen teg ko puzzle bi yëpp yëpp yëpp dafa leer naññi naññi naññi donc nguur mënul ragal ay nit yuy for ay idée mënul ragal ay nit yuy for ay pièces xama kan la ragal ki yor auto bi ki yor auto bi ki nga xamni mom mo yor pièce auto bi yëpp mom bu ko téxé rek auto bi daw mais nguur munu ragal ko xamni moto rek la munu ragal ko xamni benn buntu la munu yar ragal ko xamni capo rek la yor munul nek ki mi gëna viser moy ki nga xamni yor na pièce auto bi bu kay monter auto ba tak je respecte live Sen live nekul nekul pale de ñi live sen live nekul pale L'email live deux fois Je Sall deux fois deux fois je dis bien Macky Sall premier jour vous Macky Sall di top di ans live bi mooy je suis ci euh, Seneweb Seneweb télé lañ ko un écran plat lañ ko télé écran plat lañ ko seetaanee ki m'a l'affaire devient sérieuse l'affaire devient sérieux ne le fait gi moo de di seetaan kilifa gi moo toog di la seetaan gars yi toog ci restaurant ci restaurant ndax pale am restaurant ci restaurant ñi lay seetaan l'affaire devient sérieux ne ma nag lenn ne ma lenn affaire bi yegg si na ci bëtu président il faut ñu am ay tour yu ñi sayal mom kilifa gi kii may informer dama comme affaire bi légui nak c'est du sérieux président tek na ci bët il faut am ay tour yi ñi sayal ma ko je veux l'histoire la vraie histoire rien que la vérité tout la vérité soxlawuma leneen bañ jógee ci loolu moom jëlul woon intention woote xam nga kilifa gi dégg naa ngeen koy wax lu nekk sax mais di ngeen ko baalu àq de te bés dina ñëw yéen sénégalais ngeen toog baalu ko àq ndax li ngeen xamul bëri na mais dinaa leen damay ñëw ci processus ma leen di defal live moom si boppam moo ne ma woowal askan wi nga le 17 17 millions de sénégalais les femmes 17 jours moy wax de les femmes 17 jours le 17 ne leen dinañ am audio bu 17 minutes audio bu 17 minutes moy audio bu minutes. catastrophique ci audio yi ko père ma wax la 17 et cetera et cetera avant gis naa ñu bëri ñu génn live mo la mo ñu wo live ne ñu dañuy joxal audio mais c'est des mensonges ma ngi leen di déglu rek quand tu es un leader nek ci au devant du mëno déglu lépp bo déglu lépp rek perdre le circuit ma gis ay gars yi live oui mo la wo nañu woon daf ñuy jox audio mais dañuy fenn amul musuma wo sénégalais ne kay leen ma jox leen audio kay leen ma jox leen audio kay leen jël audio mais dañuy fenn. té pourtant gis na ay doomu adam yu def laaj spécialement di ma sosal goor ak jigen mag ak ndaw mo la né nañu kaay jo kaay la né bobu le di sa ñew ñëw may mais leader la dama porté ben combat mun ma nek di tontu ñu nek ci ginaaw damay tardé ma bàyyi mu sedd ma bàyyi le may ni sa añ ñay wax rek di wax mané grawul c'est normal bo jito auto yi nek ci ginaaw dinañ corné mais auto bu nek ci kanam du corné kon laisse ma bàyyil ma focus ci li ma nekk mais yomboon na ma genn fenn lo len bu yomb ne leen kam leen ngeen indi ma audio wala lenn lo xamni neena len bu ko kenn genné rek limay wax nak mom moy temps passé dé té te ki ne génn di fan té musuma len ko wax barki alxuraan musuma len ko wax ñi may fenal mais c'est normal ku nek bëgg nga génn ku nek bëgg nga siiw parce que ñom problème siw lañ am c'est normal ma bay mu sedd père bu mu waxé le 17 ñu waron génne audio bu 17 minutes may def ben live avant-hier ba war a jeexal per woo ma bi mu per wooyee fekk may laaj ma ne ko maa ngi laaj de waaw mais le 17 bi mu ne ma jël ma jël ma jël ma c'était l'erreur fatale l'erreur fatale ma ne ko ah mu ne ma waa teg ma ci kii bi ma teg ci la wax ak yéen c'était l'erreur fatale ci saase pale capté renseignement yi capté lépp capté ñu ne BOUM, boum ci avant moom bu muy pare rek mu jot audio yi moom ci boppam moom laaj yi laaj bu mu dugg mu jot BOUM, BOUM, BOUM, BOUM, BOUM. boum boum six personnes woo six personnes ne ko yow la mu waat wàcc boum, yuuxu ne du man ñu ne ko yow la nit bu nekk dafa am ay tic ci ni muy waxee nit bu nekk dafa am ay tic ci ni muy waxee dafa am loo day day répété sa sa sa message am na ñu la xam booy wax dafa am noo xam ne boo koy répété dañuy xam ni kii yow la noonu lañ découvrir ni comme moom nu muy façon nu muy waxee moom la mu lànk ci la problème bi nag amee le set bi nar loon am démb te yàlla dafa def dafa am seede seede bi nag mooy Ousmane Tounkara mi ngi may dégg seede la ci yalla moko ci tombeloo man Ousmane Tounkara mus ñu un problème mais doon ñu waxtaan doon ñu woo père bi bu mu paré daf na ma le 17 on va laisser tomber je ne ko non mënul nek père mu ma non c'est pas possible ma on ko non père on a annoncé le 17 mu ne mais mais tu es malade mais j'ai une famille j'ai une famille à protéger je parle même pas de ma vie je m'en fous j'ai une famille à protéger tu parles de moi toi Aïe, nit ay la comme ça sama kaw père la patrie ou la mort nous vaincrons la patrie ou la mort nous vaincrons Nous mettons. metti metti metti père à non non c'est pas possible ma ko en tout cas dina graw ba demb perne du ñew du ñewati Ousmane Tunkara woo ma ko per la coupé légui néna ñu bàyyi nonu sedd Ousmane Tunkara jox ma idée ne demal nga def ben vidéo wax ma live de demal nga def ben vidéo bon tu peux expliquer comme père dafa wala père dafa jox ma idée quoi mané ko mën mané Ousmane Tounkara mën na la enregistrer pour jox ko père mën ko vas-y ma ko jox ko père sanni ko père père déglu ko ne ma wey c'est une bonne idée né la dama fébar mais là là là je peux pas sortir je peux pas sortir ñi ma top ñi ma tek choc je peux pas sortir dara amul ba bu mu desee 15 minutes 15 minutes père woo naa ko démb suba ba bu mu desee 15 minutes ci live mun ma jot père di ko woo di ko woo di ko woo di ko woo ba benn benn moment bu mu desee quinze minutes moo woo père da ko père est-ce que mun nga ñëw ci live bi ñu teg parce que man jàpp naa ni père moo ko keppee ak pression bi mu ko nar a dóor ak question yi mu ko nar a dóor peut-être audio bi dina génn léegi nag per na ma non mënuma wax ma ne ko non mais père même bu dee da ngay changer sa voix sax parce que dama doon jëm a teg xel pour mun ko génnaloo audio yi père bu dem ba moins 15 moins 15 minutes père ok vas-y dina dugg mais nag damay changer affaire bi te sànniwuma dara dara dara duñ sànni dara dara ma ne ko waa waa waa kaay mais ba leen dégloo démb dama pété les plombs ci même ci kawam parce que dama ko yobu pression dos au mur fëgg dóor question yo xamni diko wax lo par force mais père audio du guen audio di guen diko wax lo mais je savais pertinemment que ben audio du guen parce que tout simplement, Père était en danger. En danger. Sérieux, je parle de danger. Hein. Hein. Père était en danger. Pourquoi on m'a nous bouger La nuit du vendredi, palais de la République Nalaounou, ils étaient là à contacter Ben Dom Adama pour ma liquidation bu ñu annoncé le samedi dañ génn audio le tout la nuit du vendredi waxuma la perdre, waxuma la perdre. ay ponkal de la république ñoo ma dit. ay de la république Dima ma wax ni en ce moment là gars y ñu ngi jël téléphone yi di woote di laté kan mo xam la morgan kan mo nek ci wetu Mola Morgan. kan la Morgan di fréquenté Jigen mo ma njëkk a woo

bu père ndax ne eh, père mais père tu es malade tu penses que les gens jouent avec toi mais est-ce que xam nga combat bi nga porté amul dit sénégalais bu ko porté fii jamono ji que dire wax Sonko di ci teg keneen jamono live di joxe idée yow da nga yor documents documents tu ngay lire xam nañ li nga yor yow un di hein yow ya nek ci internet bi ne affaire c'est à la légère mais si dañ lay jamono ngi à tes pieds marquage à la kilo, bo ne bouger sax bouger pour nax pour troubler leen conscience fais le tout pour bouger ne man je peux pas m'exposer japp nañ ma boy, japp nañ ma xam nga ma ne waaw mo ne ma pas nañ ma dans le sac moy sama buma ma génn ma ne ah ma mais buma vous les père fii boo len xolé père première fois bu me ma fierté buma ma num nu waxé nok waxee noonu mënuñu ma ak père num waxé demb tu sens que père pression bu mu am lépp tëju même gémmiñ ma euh, euh, euh, loo ko dugal per daw kër parce que mais c'est normal gars yi du ñu def